salaamaaleykum euh, mbokk internet yu Saint-Louis TV ñu ngi leen di dalal jàmm seen émission taxaw seetlu di émission bi nga xam ni émission politique la dañ fi euh, daral képp ki nga xam ne rek yaa ngi yëngu ci wàllum politique baa ngay euh, homme public fii ci diwaanu Ndar ñu toog waxtaan ak yow tey nag ñu am comme invité ki nga xam ne moo di docteur ndooy mu nekkal fii parti réew mi donc dañuy daay dugganteeg moom rek nuyonteeg moom docteur ñoo ngi lay siyaar. jërëjëf baax da auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi ñu sant yàlla di julli ci ndëb salaa salaam ñu leen dellu ziar di am kontante lool euh, ci répondre seen invitation bi ngeen def yéen waa Saint-Louis TV euh, ngir mën a waxtaan ak askan wi ci lu jëm ci parti Rewmi comme ni nga ko waxee waaye itam lu jëm ci lépp lu nga xam ne tamit mooy sunu réew bi nga xam ne ñoo ko bokk. ok mu mel ni euh, na nga fi nekk yaa fi coordinateur parti Rewmi tey am na ñoo xam ne ñu ngi dégg coordinateur te xamuñu lan mooy njëriñu coordinateur est-ce que mën nga ñëw tuuti ci euh, importance coordinateur. waaw xam nga ci parti boo gis rek dafa am lu mu organiser woo daal organisation parti bi nag dafa am lu ñuy wax organisation centrale maanaam ca bopp ba waaye te mu am benn organisation décentralisée bon ci bopp bi pour le moment parti bi dafa am président ku ne xam na ko parti mi président mooy Idrissa Seck am na vice président. ñu koy wax Déthié Fall am na tam secrétaire général bu nga xam ne mooy Lamine Ba waaye itam am na lu ñu tuddee secrétariat national bu doon gouvernement da nga naan loolu mooy gouvernement parti bi secrétaire national national ñu bari lañu man mi ci laa bokk man secrétaire national la bi nga xam ni ci wet googu ci bopp bi man maa yore lépp loo xam ne moo jëm ci wér yaram maanaam secrétaire national c'est de la santé lépp ci wér yaram rek muy santé man lañ ko dénk ci wàllu parti bi L'organisation centrale Mais organisation décentralisée c'est le département yi xam nga Sénégal il dafa am région a un département mais sur le plan politique li gën a fës le département Le département yi nag même si on élection l'élection, ñooy dem élection kon ci département yooyu ñun le dañu si calquer suñu organisation département c'est le centre de vote n'est-ce pas kon le ci bureau de vote etc. léegi nag ci parti bi dañ ni département bu ne dañu jël benn coordinateur provisoire koo xam ne daal dañ naan yow mi yaa fa toogal parti bi di coordonné maanaam di lëkkale bépp activité boo xam ne moo jëm ci parti bi kon ci wàllu saint li ci wàllu Ndar man mii docteur Abdoulaye man lañu ñu jiite loolu coordonnateur boobu nag am na lu muy coordonné dafa am ay plusieurs responsabilités yeneen centre de responsabilité yi am ci biir ndax ndaw yi ay centre de responsabilité la ñu ngi ci biir am nañu seen ku leen jiite ñu am tamit benn équipe bu nekk autour de njiit boobu jigéen ñi kii toog sama wet di maam jaare jén bi nga xam ne mu ngeen fekk moom tamit pôle boobu moom moo ko yore yëpp lépp lu jëm ci jigéen yi ndaw yu jigéen yi jeune fille am na koo xam ne tam moo leen jiite kon parti bi ci noonu demee cadre yi parti bi tamit am na koo xam ne moo leen jiite loolu yëpp nag man coordinateur maay jiite lëkkal liggéey yooyu yëpp kon loolu mooy sama liggéey fii fii ak ñuy defaat structurer parti bi man maay kon ne du cardinal loolu structuration boobu ma lay wax nag beneen organisation boo xam ni mi ngi ñëw soreetul mais kooku moom dañ koy def autour des centres de vote maanaam fépp fu centre de vote fii ci Ndar bu ñu jëlee commune Saint-Louis rek nga am na vingt neuf centres de vote vingt centre centres yëpp bu si nekk dina am léegi benn équipe boo xam ni moo koy saytu maanaam dafay am benn coordination bu autour de ce de vote kooku tamit benn structuration bu bees la bu nekk ci parti bi bu boobaa tam en dama koy coordonné ba ba muy jeex. ok donc donc donc na solo parce que am na ñoo xam ni dañuy euh, dégg coordinateur te amaana sax ñu ngi si biir parti bi te duñu xam euh, fonction yeeg rôle yi donc c' important ñu bëggoon xam aussi sa ambition politique ci parti réew mi. waaw man sama ambition politique moom ca ndoorte la ba léegi leen rek la mhm. mooy Sénégal dama fi toog dëkk fii ma gis ni ki Eh, du ñi fi gën manam dafa meloni ci man ñi gëna a cuune ñooy rek <laughs> manam na gis ñoo xamni ñoy nek seen jitt par force mhm. ndax bo soxla ci ñom ngay dem eh, li ngay dundé bis bu nek ta manam politique bi li dox réew mi ñom ñokay jité té te sétlo ñi gënon médiocre danaka manam suma ko doon wax da ñi nga daan bokal classe ñu nek ci ndaare wala nek ci digg ba mhm. légui ñoy ñëw ci walu politique di wax ko ciow ko def yef ba finalement ñu jitt sa kaw lo soxla ci dem ci ñom loolu laa mujjoon gis ni ki lii daal échec la ma seetlu ni nag activités yi ñuy dund suñu biir bis bu nekk mooy di liggéey par exemple man ci domaine ma nekk santé mhm. wala tam ci wàllu islaam yi may yëngatu yooyu warut dàqantuwul dara ak jéem a nangu yooyu nga xam ne ñoom mi ngi seen loxo ci laa nee woon kon dëgg-dëgg ku bëgg a changer dara ci réew mi daal mhm. bul toog fekk croiser la bras sauf croiser les bras rek ñi gën a cuune ñooy nekk sa kanam te lu naqara nga ci am danoo war a fexe ba bokk ci ni li doxal réew mi man na ci wàllu ambition boobu sama diggante sama borom wutuma ci lu fixe comme ni ko nit ñi defee naan jéem a fexe ba nekk président ba wala nekk ministre ba wala. Ah, mais mais mais mais kuy kuy loolu ngay wut tamit. Ah, maa ngi ñëw attendre dama la bëgg a wax mhm. dama ne loolu nekkul feesul sama xol mhm. mais li nga xam ne moom gëm naa ko mhm. mooy loolu yëpp amul bu ma ci manut maanaam li président mën a def jiite réew mi. tey ku ma ko joxoon wóor na ma ne mën naa ko doxal du dëgg nekk fi ministre ministre fi jaar ñu ci gën a bari ñi jàngu naa ak ñoom ñoom ñii gis naa lu ñuy def xam naa lañ ci ñu ci gën a bari la ñu man mën naa ko député ak leneen lépp mën naa ko maanaam nekkul ci man fixation mais wóor na man lépp loo xam ni yàlla ya, nit mën na ko jël ci wàllu politique wóor na ma ne man yelloo naa ko diggante boobu nag ci biir li ma yëngatu muy réew mi damaa gis ci biir homme politique yi koo xam ni moom damaa seetlu ci wàllu compétence am na compétence ci wàllu diine bi nga xam ne jàpp naa ne lu mu nekkul du dox yàlla may na ko diine ba pare dal na te it def nañu gis mu Idrissa Seck ma ne kon kii en attendant man mën naa ñëw jokk sama ambition ci bosam suñu bokkee di liggéey nag lépp lu nu yàlla jox rek. ñu liggéey ci ànd ceeg ok comme comme fi nga fi nga daan la léegi léegi muy ambition bu bu Idriss Seck am ba nga ba nga dugg ci moom est-ce que tey mënoon gis tamit euh, ba nga leeral nu taxawaayu euh, parti réew mi fii ci diwaan Ndar. waaw parti mi ci li mu li mu yëngatu ci diwaan Ndar. Mhm. moom lay lëng yëngatu ci yeneen gox yu dul Ndar. Mhm. maanaam partout. Mhm. parti mi dafay yëngatu pour que ñi nga xam ne mooy la crème maanaam day jéem a seet nit ñi gën a baax. ñi gëna am euh, compétence ba paré tamit bëgg and ak ñun ci li ñu bëgg té moy soppi réew mi euh, doxal ko façon bo xam ne mandu dana ci dugg diiné dana ci dugg waaye tam efficacité dana ci dugg groupe gogou far partout Sénégal ñukoy doxal kon fi ci Ndar lolu moy suñu liggéey bis bu nek ñi jëma fexé ba gis ay nit ñu bax ju and ñun ci liñu suñu ambition ci ay goor ki jigen ñu ànd nekk ay doomu ndey nekk benn fexe ba tamit bu ñu nekkee ci biir réew ndar gi lu ñu fi gis lu lu lu awul yoon hmm, ñu xeex ko suñ ko mënul xeex ak suñu doole ñu wax ci ba reeteet ko ba ñëpp gis ko. mais mais mais mais docteur ci côté xeex boobu noonu ngay wax noonu en fait ñun fu ñu doon xaar euh, parti réew mi tey fii ci diwaanu Ndar mooy que comme euh, ay bilan wam ak yooyu mais est-ce que tey teg li nga xam ne tey bilan la bi nga xam ne parti réew def na ko fii ci Ndar. parce que parfois da ngay da ngay da ngay laaj sax ndax réew mi am nañu am na am na am na am na am na représentant fii Ndar. <laughs> ah kon day peut-être yow xanaa ñun de dañoo jàpp ni. parti yi yëngatu fii yi fi gën a fës. Mhm. parti réew mi si la bokk. non fës moom fës ngeen moom. waaw kon nag te fësaay bi nag mooy lan mooy dañuy dégg dañuy gis dañuy dégg ci comme ni ma la ko waxee léegi lu lu jaaduwul dañu ciy dégg mhm. n'est-ce pas lu baax tam dañu ci dégg dañu ci gis parce que dañ fi am ay responsabilité par exemple man depuis. 2002 le conseil régional de conseil municipal de conseil départemental d'arnas naa vous te yooyu moi mooy li nga xam ne doxal réew am ay taxawaay yo yu ko yo xam ba fi yo wax ak yow dañ ma ci conseil départemental te foofu ku ne gis ne ligue ba fay def Bama conseil municipal non la bama ma conseil régional non la hôpital ne am man vice président conseil conseil d'administration bi kon dama bëgg wax ni té côté bobu wa réew mi yépp ci lo jël rek seen loxo ma nga ca kon ñun ñi ngi ñi ngi doxal. mais mais xam nga tay bu ñëw ci politique bi dëgg la li fi lim parcours le bi nga xam ni bu am solo la sha allah mais bu né ndar dañuy wax ndaw ñi. té té té aussi ndaw ñi aussi gis nañ problème yi fi am xey amul dara amul est ce que tay tay la fek ngeen focaliser ci yoy yëpp est ce que tamit war leen focaliser ci ci ci problème emploi parce que tamit aussi 2002 euh, bob ngay wax noonu je pense que c'est le il nek premier ministre euh, affaire euh, ci jamon ablay wad donc est ce que waa Ndar gisoon sen bopp ci loolu non parce que tout le temps bu élection amé bu ndegi idi ñep dañuy naan idi bu gennul pay ñu ne génn deux mais en revanche dañ ko gis parfois mu mu mu daanu jaxanday wa xam nga léegi dafa am lo xam suñu borom da ko waxal bopam mm-hmm. nee nguur mom moko ko moko jox ku neex moo koy nangu tam foqati ci ku ko neex kon yow li nga mën mooy nga def li ñuy wax offre politique ni kat man lii laa namm te moom non seulement wane na li mu namm ci réew mi ci wànn fàll fànn wu nekk wante jëf nañu gis comme lan mu nekkee premier ministre yëgal na Sénégal n'est-ce pas ci wàllu croissance boobu ñuy wax niveau boo xam ne ba léegi kenn dabagu ko ban ban niveau la niveau croissance maanaam dëkk bi gis ci boppam yéeg ci maanaam ci wàllu développement ci lépp yéeg amoon na fa ordre gis nga pëccoxoo bii nga gis temps Idrissa nekkee premier ministre ci parti yeeg yu mel noonu ak réew mi ak dal gi woon gis ba mu fi jógee la fi géej ba tey kon loolu am na loo xam ne jëf na ko fa soo ci boppam nga nga xam ne fa nekkoon maire nekkaat fa président conseil département def na fa loo xam ne ba léegi waa Thiès moom la ñu waate moo tax ah, mais mais mais non léegi Thiès moom Idrissa ki moo fa teg tànk euh, taalisi la <laughs> waaw taalisi la ci boppam mm-hmm. Idrissa moo ko fa teg waaw ah, mais doon am problème seen biir léegi ba nu jubóog léegi yàggul sax comme nag moom defalagul boppam mm-hmm. moom bu fekkee ne moom rek la moo doon laaj du nekk maire te gisaguñu nag ñu ngi xaar nag yii di ñëw bu demee ba laajal boppam ñu seet ba xam ndax dana amaat fi waaye fi may waxee yow moom la mu nekk Idrissa moo ko teg loolu leer na ñëpp ok te ci côté boobu tamit ci wàllu liggéey laa lay wax moom. liggéey ba fa Idrissa waxoon ba léegi amul naataable ci keneen kon taalisid la liggéey gu fi li fi Idrissa teg def soo fa ca Thiès kon loolu ñu gis si moom la ñu gis ni la mu mën a def foofu te mu bëgg a jël réew mi nag Sénégal gi yëpp bañ na ko ba parti mu ngi ko tëdd réew mi bëgg ko fa yaatal kon dañu am yaakaar ni kon bis bu ñëwee dana ko yaatal ci Sénégal gi yëpp léegi gis nañu comme ñoo ngi ndar ah, actualité bi nga xam ne ngi dox muy depuis 2 ans suñu mbokk gendrien yi sen licence yi dañ ko téwon alors nga dégg parce que fan yee kaw Idriss Seck ñëw ba fi waxtaan seek euh, gendrien nga gis ni léegi euh, maki def na tout ba léegi am nañu léegi sen licence ak yoy non na nga gisé tay jéego bobu non wa affaire bu leer kay moy moy Macky Sall mom li ñuy wax naan pousse ba dafa ñëw ci mom rëré ci mom <laughs> ndax gis nga avant mom muy ñëw manam mhm. depuis temps socialiste ba légui mhm guetndarien dañ dendam am ay licence de pêche yo xamni ci walu diplomatie ci walu waxtan diggante dëkk ak dëkk ñepp ñi fi jaar daan daan mëna waxtan ak suñu mbokk naar yi suñu mbokk mauritanien di waxtaan ak ñoom may ay licence ndax ay dekkale lañu te guetndar buntam bi gëna a moy mauritanie kon lolu ciosan la naka jek ci waa guetndar ñu daan dem mauritanie lolu nak pour non dama ko tuddee échec diplomatique hmm. du deug bu ko défé échec diplomatique moy ñaari réew yi ku si nekk da nga soxla sa morom. ku ne gis na ni naar yi tey seen gëlëm yi tey fi lañ koy indi te ay lu mat nangam nangami gëlëm nañ fi indi at bu jot wala ñett junne ak nangam ñu dugg sunu sunu sunu kii. Eh, di fi di ñu leen. mais mais gisoo est-ce que est-ce que tey gisoo ni ñoom gisoo ñoom ñi nga kay générien yi bu ñu demee foofu ñoom ni nii doxalee moo waral tey problème bi yëpp am. waaw yooyu itam daañu ci ñëw. ndax tamit ku nekk tamit eh, c'est vrai soo demee ci dëkk jàmbur da ngay jéem a respecter loi yi. amuñu ci benn naatable waaye nag loi yooyu suñ bopp ko dëkkaale dafa am dafa am loo xam ne tey bu ñu ko doon teg sax un malien wala ñu ko teg un keneen ku gën a sori ñun ci côté bii ñi napp ñoom ñu bokk suñu géej xam ne benn la ñun war nañu am lu ñuy wax lu préférentiel ay luñ ñu mën a nangul li ci am nag mooy comme ña napp gi mënut a ñàkk moo tax suñu gendarme yi ñoom léeg-léeg ñu ñu jéggi frontière napp foo xam ni may ñu permettre nañ ko wala fekk amuñu licence bu ko defee ñooñu bu ñu leen jàppee mooy indi problème ñu nangu Sénégal ak. mais mais moom léegi sant yàlla comme am nañu léegi licence yi moom. léegi defe naa jéego la bi nga xam tamit c'est à saluer quoi. ci côté boobu nag. Mhm. laa lay wax ni seen gis-gis dafa gàtt. Ah, seen xel ñu ngi góorgóorlu de. <laughs> ñu ngi góorgóorlu mais dañu dugal ay problèmes yoo xam ne ëllëg si biir. Mm. régime bu ñëw dañ koy gérer ndax ñun incha allah déwén dañu leen fas yéene dégager. mais ah, bu ñu leen dégager mais foofu ay buule yu nii. Mm. day nekkaat yeneen négociation yoo xam ne kenn du xam kañ. léegi léegi léegi foofu laay ñëw tuuti parce que comme yaa ngi naan élection yi mi ngi ñëw instant bi bu ñu ñëwee si côté élection yi tey euh, candidat nga xam ni dañu taxawon pour samp sen dënd ku ci mel na Khalifa Sall ba ku ci melni ne Karim Wade ñoom ñëpp gistuñu leen donc idi bi fi nek sax ñi ngi naan est ce que du yi muy def yëpp ay dil yi nga xam da koy def pour jema xaar euh, gaay yi génn mu mëna a ranger seen ginnaaw tey nga dégg tey euh, ki nga xam moy maire Ndar responsable euh, def def fan yi benn sortie xamal gaay ñi ko aussi que di nga xam di sew yaw sen mandat dafa jeex te li li nga gis lépp genre dil la bi nga xam ñom ak Khalifa la tay na nga gisee tay cadre en tant que tay ministre maire xam nga Macky Sall dafa décevoir ñep mok régime eh non xam nga lutax mom moom da di ndaw mhm. dik mhm. réew mi ñep man mi sama carte bok na ci ñuko ñuko wa ñu ko deuxième tour ñep jox ba mu am 65 sama amul na lii amul na 65 23 la man xoma ci mhm. premier tour waye comme yalla def na mu nek ci kanam te ñun sax ñu won campagne ñu ni comme temps régime ñun niñ doon xex mo doon Ablaye defoon na ñaari mandat ñu jappalé ko muy suñu papa de suñu lépp waye bu bëggé bëggee ñetti mandat ñu ne ko démocratie maye ko mhm. ñun ta lañu fippo tok mom mhm. nak mom mom mo moo féeteerlu ba dem élection ñun dañu bu dé lool la ñun duñ sax dem élection mom mhm. nak comme mo dem nak mo fess ba génn am 23 mais ñëpp japp ci mom 65 dañu yaakaaroon ni ki mom au moins ak démocratique yi mais yoy daf koy daf koy ki daf daf daf ciy taxaw Macky Sall feul d'abord lamu ñu digon te digënté ñaari tour yi ni mom juroomi at du ko passé mukk mukk mukk loolu la ñëkk jalgati waxon day def régime bo xamni bu soobee yalla du passé ñaar fukki minute ak juroom mhm. kenn waxatu xatu mais liggéey bék la ñew emploi 500000 emploi ndaw yaangi fi ba légui kenn xeyut te juroom ñaar at tok naka fi. wa mais est-ce que duñ ko est-ce que nga bay mu égalé ba ci kanam mais 5 ans est-ce que mëna am mëna am loolu non ci ci question ci walu démocratie nak mhm. mais Macky Sall lu bon bon bon xanaa la laa Wade doon def kay su deful lu ko ëpp war def lu ko yées mais moom mu fas yéene non seulement léegi juróomi at yi juróom-ñaari at yi moom lonk na ko waaye daf ñu bëgg a par force nag yeneen juró yeneen juróomi at yoo xam ne par force neex ak naqari te nan la koy defee képp koo xam ne mën nga koo daaneel mu ni boolaa nga koy daaneel moom mu daaneel avant élection te loolu du démocratie loolu moo tax ñi ngay wax fii muy Khalifa Sall mu indi ko ndëgg sarax boo xam ne ku ne xam ne ay tappale kese la ndaxte Khalifa Sall dafa nekk maire dakaar sonal ko lool élection bu gagné bu ñëw mu gagné Dakar mais ñun ay démocrate dañ ko war a nangu. mais mais problème problème caisse d'avance bi nag la ñu wax. mais mais non parce que docteur dañuy gis saa su nekk gars yi dañuy jéem a jël loolu dekk dekk ci place politique est-ce tamit ñi leeral population yi xamal exactement li fi nekk. caisse d'avance bi. Mhm. Macky euh, kii euh, Khalifa ko. da fi fekk. moo baax mu bon ñi fi jiitu ñëpp. moom lañ doon doxal te may may ma ma taawil la ko yamul foofa de ba ci ndar gii gis nga nu fa caisse d'avance bi di fonctionner tey jii tey noonu la mairie ndar di fonctionner ak ku nekk ñoom ñëpp koo si gis day am benn caisse boo xam ni eh, léeg-léeg nga gis benn fournisseur ah ñu am na ñu doxalante yoo du aw du du du awee yoon ñu fayal la ci donc yooyu malheureusement noonu la communes yi doon doxale Khalifa Sall lam fa fek monsieur le maire Modou Diop don la don doxale ñeneen ña fa nek ñëpp mu fek leen fa non la don doxale ñom ña def nañ ci témoignage ni kat li khalifa def ñun ñëpp mom lañ don def kon kay tay yow boko bëgg soppi ta amone possibilité toppi ko té mom signé woon na benn décret bo xam ci jamono Idrissa sek la won dañu waxone caisse bobu dañ ko bëgg liquider ni lañ koy liquider ñu indil ko loi mom jaaru ci dé mu bayiko fofu soppi ko ba khalifa Sall ñew mu jëm ñëw àtte ko ci loolu kon kay yëfu politique la waaye du pour lu wut lu maandu parce que bu ñu bëggoon maandu dañuy waxal si Fall ba mu ñëw ñu ni ko kat mbir mi fi daan aw bopp ñi la fi jiitu ba tey ba ci yow léegi dana bëgg mu dàkk xam nañu naam sax moom nga daan def waaye bis ni ko tey boo ko defee danañ daal sa kaw ndax loi bi kat lii ak lii mu nekk lu bees loolu moo gën a juste moo gën a maandu ñu xool ndax ndax Khalifa Sall boobaa dana ko def waaye waxoo ko dara. yow sa bopp moom Macky Sall sax Khalifa Sall nee na lekk na sax ci caisse d' avance bi. waaw ah, mais wax ko woon pour jéem a pénaliser. déedéet ay témoignes ay témoins lañ fi teg yu ko fekkee ñoom Jean Paul Diaz ak ñëpp nee nañu fekkee nañ ko. mais ñoom Jean Paul Diaz ñu ngi si opposition bi. bu ñu nekk du ñu fenn. est ce boog est ce que ma lay wax. Mhm. dégg nga Macky Sall weddi ko. ni weddi na ni lekkul ci caisse d' bi est weddi na ko. non déggul déggul nag mu def benn sortie mais est ce que. tubaab moo ko wax. Mhm. nee na ku ñu dara weddi woo mhm. yaa ko def kon nag comme nekkoon na ñëpp Sénégal yëpp wër na leen caisse d'avance bi moom. Mhm. ñëpp ñu ci xew lu bari nañu. léegi nag comme du lu baax te ñu bu ko teg suuf. Mhm. dañ ko waroon yam ñëpp yëg yëg ko ndoo ko. Xalifa Sall yëgandoo ko mhm. bu boobaa léegi bu ko bu jalgatee loi bi daal ci kawam. léegi léegi léegi euh, sotti sotti sotti maire bi la nga la nga la nga si wax yow en tant que en tant que en tant que responsable fii ci Ndar. franchement euh, c'est une sortie malheureuse sama sama rak <laughs> sama rak warul woon wax li mu wax. franchement. li mu wax ni am na ñu nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw euh, lii nga xam ni mooy CEDEAO mhm. loolu dafa maanaam. gis dégg est am si lu leer aussi tamit. waaw xaaram wax la xam nga am na yoo xam ni kooku tuumaal la boo xam ni gis nga dafa am benn niveau moom niveau ministériel la nekk léegi buy wax. na fàtte boppam na fàtte affaire parti politique bu mu bokk ay APR da ko fàtte na xam moom ministre de la république la bu nga xam dafa war a respecter les institutions ni mu respecter Sénégal respecter assemblée nationale ah respecté gouvernement respecté lépp en tant que ministre en tant que loolu moo waroon tax tey CEDEAO n'est-ce pas bële nga xam ne institution boo xam moo nekk sax suñu kaw bopp moo war leen respecté mais bu demee ba naan ay dealer ñoo fa nekk te maanaam dafa leen wàcce seen grade mais est-ce que lu am tamit parce que xanaa sañu sañu sañu wax sañu wax li nga xam ne amul tamit bu boobaa xam nga lan la war a njëkk wax mhm. nan day wax li may njëkk wax yow président Macky Sall comme fee ay tappalee fa nekk. Mhm. génn ci nañ génn mais Macky Sall fi mu nekk nii. Mhm. ñoom ñoo nar a présider sax prochain ski bi. ka xam nga loolu kon kon kon joxul benn respect boobu institution. te man nag li ma gëm nag mooy. Mhm. yii mu ciy wax noonu. man gëmuma ko man. parce que foofu ay magistrat yoo xam ni responsable. ñoo fa nekk magistrat yooyu. dañ leen créé mu magistrat yi ñoo fa nekk. kon bu ñu génnee euh, benn.

donc ñu and sék ki nga xam mo di docteur Ndoy nek coordinateur fi ci diwan Ndar nek fi parti réew mi aussi ñu tok ak suñu ben yaay boy bi nga xam mo lay wax mam jaara bu Bousso Ndar donc yaay est ce que tay mënon ñëw rek bala ñu tej parce que temps bi xoj nañu gaay di ngi may signal léegi heure bi mais nga sànni si kaddu tey euh, taxawaayu euh, jigéen ñi ci parti réew mi fi ci fi ci Ndar est ce que mën nga ñëw nga def ni ben bilan bi nga xam nañ koy daal def ben genre synthèse rek. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim xanaa di sant yalla jul ci yunus sallallahu alaihi wasallam wa di len remercier aussi ci euh, teway bi ngeen tew fi ak invitation bi ah di sant aussi sunu coordinateur ah di wax alhamdullilah rabbil alamin rek comme ni ñu ko waxee ndax mbiri parti rew mi yombul ndax nek ci parti bo xamne du parti au pouvoir dafa metti te ñun dañ ci yàgg yakar naa ne ñun presque mën naa wax ne maa ngi ci plus de 13 ans xam nga kon lolu yombul kon nek na parti bo xamne ñu ñoo ko gëmal suñu bopp man en personne maa ko gëmal sama bopp nekk ci di ci liggéey ba fi ñu toll nii te yaakaar naa ne regretté moo ko parce que fi ne actuellement ñu ngi ci mëne euh, activité yu am solo activité yooyu nag buñ koy mënee dañ ciy sant suñu coordonnateur bii teew ndax euh, liñ naa xale bu feccee yaay jaatee ci mbagg ma ndax ñu dañ fee nekkoon jigéen ñi ñii tasaaroo ñii dem fii ñii dem fii ba yàlla dogalee ñoom ñu organiser ñu en groupement di ñu financer

vraiment dal mais mais mais chaque chaque année chaque chaque élection bi moins bu jotté lolou lay wax bu ñëwé dañ ñoo ñoo ci ñoo ci ñoo ci dugg té bu ñu ñëwee rek gisaat benen benen phase bi nga xamni du du day wuteeg lolou ak ak suñu ay bëgg-bëgg. donc lolou est-ce que du benn affaire bi nga xamni dafa dess ci mom nu muy doxalé wala nu ay militant di doxé man de yaakaar naa ne fi mu ne ñun soxlawul sax bu ñu nekkoon porte à porte sax soxlawul ndax nit ñi seen bopp ñoo ko gëmal seen bopp di débouché wi di jóge partout di ñëw ci ñun. waaw mais yaay débouché bi nga xam ne depuis ñaat at. yow mënu fexe tey ba jël sax deuxième wala wala kii nit ñi ñoom ñoo xoolal seen bopp ba gis nañ ne ñoom lii fi nekk yaakaar na ne xool nañ ba xam ne sa Seck mi xam nañ bu buñ ko fi jiitee yaakaar naa ma réew mi dina soppi te ñëpp a taxaw fi ne yaakaar ne Idi mën na ko soppi te dina ko soppi insha allahu rabbi donc la jigéen ñu euh, parti réew nekk fii ci Ndar di gën a góorgóorlu rek di gën a góorgóorlu rek di gën a am courage jóg taxaw lijjanti carte yi préparé ko ba changement bi ñu bëgg indi ñun ñëpp ñu jàpp taxaw ba changement boobu am insha allahu rabbi di gërëm ñëpp di sant ñëpp incha allah donc euh, euh, docteur donc dañuy teg léegi dañ lay bàyyi nga euh, lancer sa sa message ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ban message ngay lancer internet Saint-Louis TV yi. waaw di leen wax rek yéen internet Saint-Louis TV bu leen décourage bu leen jàq adduna bi jafe-jafe yàgg na fi waaye toujours da am ay solution te solution yi ñun ci parti mi il y trois mois dajale ñu lu mat junniy cadre ñu dajale leen fële ci sali ñuy réfléchir. bépp domaine boo xam ni nekk na ci vie vie active bi rek génn nañ ci benn programme boo xam ne programme boobu leer na nañ daañu leen ko leeral yéen ñëpp ngeen jot ci te programme boobu solution la pour problème yi nga xam mooy moom lañ jànkonteel. kon nag bu kenn découragé nañu gën a góorgóorlu mais aussi nañu taxaw ndaxte régime bii nga xam ne lañu jàkkaar lool régime la boo xam ni dafa defe ni jaay doole la ak demal sa bopp te doo yóbbaale ñeneen ñi te loolu mënut a nekk ndax Sénégal daf ko passé mm. boobaa itam il faut ngeen ngeen farlu ngeen taxaw ne jonn ba nga xam ni teg réew mi ci yoon obligé Macky Sall mu respecter eh, la loi mais tamit mu respecter aussi la démocratie loolu laa leen di wax. ok jërëjëf defe naa sunu papa jul mu wax leer na muy docteur ndoy tey moo doon amoon invité euh, fii ci ndar ci émission wu taxaw seetlu muy émission bi nga xam ne dañ fi dalal képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci wàllum politique wala nga yëngu ci activité Saint-Louis dañuy toog ak yow waxtaan ak yow donc li leen indi woon seen émission di leen jox dig ak daje ci yeneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh